Ardo Gningue maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay nga nekk activiste républicain conseil départemental bu ca Tivaouane euh, conseil municipal ca nooto guy Diama déjà en tant que activiste ma lay laaj naka nga gisee jafe-jafe yi jëm ci wàllum euh, suuf fii ci Sénégal mu nekk loo xamante ni jot nga ko dund foofu ca nooto guy Diama ak tamit kaawu Ngor bi noo ko gisee. Euh, dëgg la kii maanaam euh, kii euh, Ndeye maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar di nuyu bépp kii auditeur ak auditrice bu Rewmi FM di leen jaajëfal di li nga xam ne moo xew nag fële si Ngor lu def duñ def loolu di ko ñaawlu di def si di montre suñu soutien aux populations de Ngor suñu suñu suñu jàppandi ñoo ngi jàpp ñoo ngi fekk si waa Ngor ci li nga xam te moom mooy jafe-jafe yi nga xam te ne ñoom ñoo ngi ci nekkee si pour jot seen suuf soosu. ndaxte maire bi déglu nañ ko moom si boppam nee na waa gendarmerie moom recevoir na leen nee na yow bëggoon ñuy def brigade mu ne leen kat am na assiette bu fi nekk assiette bi moo ngi toll si six mille mètres carrés ñoom ñu bëggoon cinq cent euh, mètres carrés ba ñu bëggee cinq cent mètres léegi maire bi ne leen man de mën naa leen jox trois cent mètres ndaxte commune bi dafa bëri ay infrastructure yu bëri yoo xam ne amul ko li si mel ni lycée ndaxte ndaw commune Ngor bu ñu bëggee jàngi dañuy dem ba fële nga xam ne moom mooy euh, moom mooy fële euh, euh, fële mm, wakaam di fa jànge di dem aussi fële nga xam ne moom mooy euh, yoof difa fa mais foofu si Ngor amuñu lycée bu ñu jàngee aussi yor soxla nañ yeneen infrastructure yoo xam ne xaj na si six mille mètres carrés yi donc bañ loolu amee ba discussion boobu amee waa gendarmerie daal di dellu bañ delloo daal di xool li nga xam mooy assiette yi gis ne kat assiette yi six mille mètres yi patrimoine état la domaine de l' la ba ñu ñu ñëwaat bëgg a foqati li nga xam te mooy six mille mètres carrés si loxoy maire bi donc loolu nag day nekk loo xam ne amaana dañ koy faral di gis dañ koy loolu nag mu fekk loo xam te dafa kenn mënu ko nangu kenn mënu ko seetaan suufu ngor bi nañ ko wàccee waa ngor le maire le maire de le premier magistrat de la de de Ngor maa ngi koy apporter sama soutien li nga xam ne di xamal ne vraiment xeex bi moom du si wéet et euh, li nga xam ne tey moom mooy suufu Ngor bi nañ ko wàccee waa Ngor wa Ngor vraiment mu ngi ci profité wu mais waruñu ko jël di ko di ko di ko jox waa gendarmerie lépp bàyyi waa wa à leur sort parce que Ngor ñëpp xam nañ ne amul espace ñëpp xam nañ aussi amul suuf. donc mm-hmm. buñ bëggee jël ñu toll noonu ci ci suuf bu ko bu ko jox ñi waa waa gendarmerie daa gendarmerie baax na ci Ngor. parce que dina yokk li nga xam mooy kaaraange waa Ngor waaye tamit suñu sañoon daal ma ñi nga xam te moom waa Ngor lu ñu bëgg seen suuf ñu wàccee ko waa Ngor ñu décider si. d'accord léegi euh, pour yow euh, d'une manière générale euh, problème mu foncier lan moo ko mën a réglé est-ce que gestion bi dañ ko war a bàyyee état wala dañ ko war a bàyyee euh, mairie pour yow ñan ñoo ko war a gérer exactement. c'est ça xam nga le président Macky Sall indi benn initiative trois trois de la décentralisation bon je pense que ak trois de la décentralisation boobu dañ ko war a matérialiser si même ba si assiette foncier yi. suuf si askan bi ñoo ko moom population yi ñoo ko moom. donc état bi dafa ko war a jël mettre ko à la la disposition des des des collectivités territoriales dafa ko war a jël teg ko ci loxoy mairie yi maire yi di ko gérer ndax maire bo maire boo gis bala moo laal benn mètre carré si suuf dina togg ak askan wa dina togg ak chef de village dina togg ak imam bi dina togg ak askan bi ñu ko moom famille bi waxtaan wax leen ne kat man kat lii kat am naa lu bëgg ko def fi nangam ñoom ñu xool nag lii nii kat intérêt commune bi yëpp la ñu d'accord ci ñu mais bu fekkee état mooy bëgg a jige fale bëgg ñëw bëgg a jël suuf si nga xam ne tey ña fa nekk ña fa dëkk ñoo ñoo gën a yittewoo yaakaar naa loolu toujours coow lay indi ak problème donc tey li ma gis sama xam sama gis-gis bu gàtt mooy que même état bu bëggee jël suuf sax dafa war a jaar si nga xam ne tey moom mooy si mairie dafa war a jaar si mairie yi muy muy muy Ndingler di di di à Tobène mi commune de di di à Notto Gouye Diama fépp foo xam te ni état du Sénégal bëgg na fa projet si suuf bu mu munti doon certes suuf si nañ naan domaine d' état domaine de l' état d' accord naa mais dama ne suuf si dañ koy bàyyee administré yi ñi nga xam ne mooy lee maires di gérer ko état projet bu mënti am na jaar si maire yi maire yi ak askan bi bu ko defee lépp lu mu bëgg mën koo def jàmm na ñooy man daal loolu laa moom mooy sama gis-gis mais pas ñu jël suuf si di ko nangu si loxoy askan bi di ko jël di ko jox ay privé di ko war a di ko jël di jox ay ñoo xam te ni ay euh, ay ay étranger lañ loolu ànduma si tey ànduma si suba moo mm-hmm. dal béykat yi di dal euh, sàmmkat yi moo dal ñëpp moo tax fi doon Sénégal ci des na tuuti suuf dootu fi amati parce que da gis da ngay gis benn étranger jógee fële ko loo xam doomu dëkk bi mënu ko am fan lay jaar si état bi lay jaar ndax bu jaaroon si maire bi du ko am man mii di wax ak si conseil municipal à notre biir jamono te loolu xam naa bu baax a baax ne suñu maire kenn du ko ñëw ne carrément dama bëgg jënd suuf wala dama bëgg soxla suuf si te du la wax ne suuf si am na borom donc suuf si nañ ko bàyyi seen ay borom maire bu fa nekk bu bëggee dara wax projet wala état bu bëggee benn projet indi ko si ab bu jaaree si maire maire ñu wax ak askan bi bu waxtaanee askan bi bu nopp bu ñu jubee jamono ñooy coow dootul amati man daal loolu laa gis mooy solution. voilà euh, mais euh, Ardo yow nga nekk jeune mais da nga yëngatu bu baax a baax ci wàllum mbay parce que nee nañ réew li ko mën a suqali dëgg moom mooy mbay euh, tey jii euh, pour yow euh, lan mooy jafe-jafe yi nga xam ni baykat yi ñu ngi koy rencontrer ba tax agriculteur bi agriculture bi plutôt fi mu war a yegg dugg fa yan jafe-jafe moo taxaw carrément ci seen kanam. waaw jafe-jafe bi béykat yi di di jàppanteel bu ci ëpp lenn la mooy suuf si avancé. Mhm. parce que amul suuf doo mën a béy. dañoo war a jël suuf yi suuf si wàccee ko béykat yi wàccee ko askan parce que ngay dem si ab si zone des Niayes nga dem si foo mënti dem foo dañ naan la fii kat moo ko moo si teg moo si teg tànk. Mhm. forêt c'est-à-dire day nekk euh, kii day nekk forêt euh, ki réservé euh, wala mun day nekk benn benn espace bu réserve boo xam ne réserve de l'état lay nekk wala loo xam te ne day nekk forêt classée donc yooyu noonu yëpp mu nekk ay jafe-jafe yoo xam te béykat yi ñoom ko jëm benn ñaar ko jox benn benn mille hectares deux mille hectares ñii may wax ak yéen Ambane soo demee fële si Richard-Toll jox lañ fa deux mille hectares ak indien indien mooy ñi nga xam te moom mooy waa Sénégal ñu fay bay yéene nañ ne léegi nañu jël benn cent hectares wala deux cent hectares jox askan bi ne carrément jël leen ngeen utiliser fi ngeen bay ko benn ñaar aussi concurrence déloyale bi am da gis benn si ngay yi ñoom dañuy ah, dañuy ñëw di bay avec le le meilleur état bi jàppale leen bu ko benn waaye mooy jigéen fële benn Babacar wala benn gaal puissant ñëw mu ne mu ne gas forage bu deux cent mètres bu trois cent mètres donc di bay à côté si si nga xam moom mooy paysans yi nekk foofu noonu te loolu noonu li muy indi mooy lan dañuy dem ba ndox mi ñaaraan am ndox dootuñu amati ndox parce que béykat yaa am ndox di bay ñu doon ba gas ay góor forage douze mètres quinze mètres dootuñu mënati am ndox loolu mooy problème bi c'est-à-dire que il faut que état du Sénégal protège protéger suñu ay béykat protéger sa sàmmkat donc loolu lu war def la léegi nag mënul mënul état du Sénégal mënul taxaw muy président Macky Sall ba mu ñëwee en terrain ba mu ñëwee Thiès conseil des ministres Thiès na nañuy jël suuf si delloo ko baykat yi ndax tey tey soo demee usines yi ngay gis ay ICS bu ñu exploité suuf ba noppi dañ koy jël jël dañ koy jël euh, kii ko euh, restauré ko bu ñu ko restauré léegi au lieu que jox ko askan bi foore nañ koy jox foore teg si tànk bu ko defee état du Sénégal projet bu mu mënti am day ñëw jaar directement mais li ñuy wax dañ ko jëmal su ma seyoon suuf si avant tout nañ ko jox ñu ngi ko jox euh, béykat yi béykat yi aussi jàppale leen ci ay financement pour ñu mun a am ndox ay forage yu baax di leen gasal ay ay ngandam forage bu boobaa béykat nañ mën a demal seen bopp béykat soxla ñu leneen du dul loolu waaye nag lu ñu dul accepté mooy lan suuf suufu béykat ñu jël ko di ko jox di ko jox ay étranger wu ñu di ko jox ay borom doole di bàyyi béykat yi noonu duñ ko def on va défendre les les les les paysans paysans nañ leen défendre nañ leen jàppale parce que suuf si mu def seen ay loxo loolu moom allah rabi dina ci taxaw te fan voilà ax doo ñu wax ci beneen euh, mbir parce que am nga tamit casque act activiste wala politique euh, naka nga gisee tension politique bi nga xam ne euh, actuellement allo allo allo est-ce que ni yaa ngi may dégg. waaw c'est bon. voilà ma ne nga am beneen casquette euh, à part en tant que agriculteur léegi yow euh, nga nekk euh, peut-être homme politique nekk activiste naka nga gisee tension politique bi nga xam ne actuellement moo am ci réew mi gis nga ni arrestation yi bari na du côté opposition bi taskatu xabaar yi sax ñi ngi leen di jàpp di leen convoqué ban jàngat nga am ci ci mbir moomu. jàngat bi ma am mooy que ne Ndeye Comba maa ngi leen di xamal ne réew mi ñoo ngi toll si ñoo ngi toll ñoo ngi nekk ci guute. Mm-hmm. ndaxte euh, bu ñu demee ba justice maanaam euh, li xam ne moom mooy yoon gaa ngeen dafa jeng sax mais fi mu nii dañ doon wax dafa jeng mais dafa dem dafa jeng ba ndërmeelu ci côté pouvoir bi waaye dama ne yoon yoon justice yoonam nekkul ci li nga xam ne tey moom mooy différence bi am. entre pouvoir ak opposition ndax ñëpp xam nañ ne ñoo ngi jëm si élection présidentielle ku wax élection présidentielle wax tension te tension yooyu di am pouvoir dina taxaw génn wax opposition génn daal di weddi wala opposition génn daal dal si ko pouvoir pouvoir aussi génn dal si ko opposition loolu noonu loolu la démocratie dëkk démocratie yëpp di doxee donc suñu démocratie pour ñu protéger ko comme ni ko président Macky Sall waxee woon si RFM pour ñu protéger suñu démocratie yaakaar naa ne meilleure solution mooy lan que la justice génn ci li nga xam te moom mooy coow li am entre pouvoir ak opposition intimidation yu bëri na te gis nañ ne kat à chaque fois opposition bi rek dañuy jàpp di leen yóbbu si yoon tey pouvoir bi des fois dañuy génn di wax loo xam te ni amoon na tegul fenn dañuy wax lu leen neex la ñuy wax ci kër di koy jëmale si opposition mais dara du leen si mm-hmm. mais opposition bi may ñu leen dara ñu ti ko te wax ko ñu jëm si pouvoir bi loolu pour la mm-hmm. waaye nag maa ngi ña sax aussi ñu respecté institution yi ñu respecté li nga xam te mooy justice bi ñu respecté magistrat yi waaye tamit di leen ñaax ñoom tamit parce que ñoom ñu génne ñi nga xam te ne tey seen loxo ci li nga xam te ne tey moom mooy jëm si tension politique bi am si réew mi. nañ bàyyi ñu jé seen jeu politique pouvoir que opposition kenn ku nekk def sa rôle pouvoir bi def rôle pouvoir jéem a euh, conserver le pouvoir ak seen ay argument opposition bi ñëw pour dénigrer pour critiquer ñu bàyyi la aussi ak seen ay argument mais lépp ñu def ko si dans les règles de l'art donc loolu laa bëgg vraiment justice bi vraiment lii ñu nekkee ni c'est trop il y a des détenus politiques et je dis am na ay détenus politiques samay wax dama koy dëggal le président Macky Sall weddi na ko man dama naan am na ay détenus politiques hmm. ndax détenus yoo xam te ni yow li nekk un opposant da nekk da bokk si wala da nga wala da nga génn ci ci réseaux sociaux yi amul na nga nekk un citoyen nga jàpp la wala nga génn manifestation am nga génn donc taaloo pëna daal di woo euh, bitigu jàmbur nga génn ñu jàpp la yóbbu la si kaso bi tëj la fa yaakaar parce que kooku da doon def liberté liberté d' expression moom la exprimer ak manifestation beneen am na du ma du ma ànd mukk aussi ci ñi nga xam ne tey ñooy toj di di yàqati alal bi jàmbur di toj oto jàmbur yi di toj ay ay Dakar dem dikk di dugg si ay Auchan di saccagé di di di yàq ay place jàmbur di mbi jaay si téléphone loolu du ma ànd mukk mosuma ko cautionné parce que loolu bokkul ci nga xam te ne mooy suñu ay suñ suñu xeex ci politique wàllu politique suñu xeex si woon si wàllum politique yan la mooy que dañuy respecté ak ak yelleef doomu aadama yi pour pouvoir bi respecté euh, askan bi loolu la que force euh, reste reste toujours donc loolu mooy suñu combat donc te loolu incha allah rek di waaw léegi euh, naka nga gisee séparation bi am ci diggante euh, président Idrissa Seck ak président Macky Sall yow ban jàngat nga si am. Ah, waaw waaw lu nag moom foofu soo waxee séparation dafa mhm. benn la mënu ko fa sori mënoo soow benn PDS réeróo wu ñu loolu lépp famille libérale la. Mhm. ñoom ñëpp ay libéraux lañ libéraux wuñu benn ñoom ñoom ñëpp benn bàyyi lañ am muy le président Abdoulaye Wade ñoom ñoo fi nekkoon depuis mille neuf cent quatre vingt ba léegi ñoo fi nekk quatre-vingt-treize sax laay wax ba ñoom ñoo fi nekk famille libérale bi benn la donc tey séparation amu fi léegi nag lenn moom soo ko waxee dinaa si àndal yow mooy jeu politique bi am mhm. ndax tey le président Macky Sall di Seck ànd élection yi ngi a ñëw kenn ku nekk buñ ko dem wuti bëggoo bëgguñu nguur gi génn seen ay loxo Macky Sall bu sonoon tey nguur gi di génn si loxoom si loxo Idriss Seck lay teg mhm. pour protéger ses arrières mhm. bu defee aussi waa kër Macky Sall ñoom tamit que jàpp nañu bu Sonko nguur gi rëccee Macky Sall bu demee si Idriss Seck après mun nañu rangé si ginnaaw Idriss Seck parce que ñoom ñëpp benn famille donc foofu jeu politique moo fa am mais nag séparation nag soo soo ma ko waxee entre Idriss Seck ak Sonko wala nga ne entre Macky Sall ak Sonko laa dinaa xam ne carrément kat lii nii kat c'est tout ce mais ba léegi may wax ak yow nii damay sentir benn jeu sax bu am entre benn deal bu am entre l'antisystème et le système y a un jeu politique bi te loolu c'est très grave loolu arrangé wu antisystème bi arrangé aussi dans système bi parce que te askan bi yeewu nañ nit ñi defatuñu dañ xam ne nit ñi yeewu nañ ndaw ñi yeewu nañ kenn defatul kenn nelawatul donc li nga xam te ne moom moo fi am si réew mi transhumance bi bëri bëri fi mooy lan tey bëgg nekk ci nguur gi pendant ñaata pendant cent ans loolu dafee war a jóge xoolal tey ku ci mel le de Aïda Mbodj depuis temps euh, Abdou Diouf ba léegi moom ci nguur moom ci moom ci nguur ah euh, xoolal ku ci mel ne le cas de cas de Mimi Touré nekk si nguur Macky Sall bi ba ba ba jóge ba ba ba bëgg dara nekk président assemblée nationale jotu ko mu génn révolté wu di xeex troisième mandat nekk di dalee arrangé wu si F24. Mhm. ah xool di kaw ab Habib Sy. le cas ñoom bëri nañ ci nga xam ne tey amaan tey lu Sénégalais yi problème bu nekkee ñoom seen loxo ñoo ngi si biir. te tey tey ñoom ñoo taxal ñoom ñooy opposition ñoom ñooy ay radical ñoom ñooy ay antisystème juste de dire non mais nag ñi si mel ne exemple le cas de Pastef. Mhm. Ousmane Sonko ñëpp gis na li muy incarné. ci l'antisystème lépp ñu gis ne li ñu incarne ci la ci euh, la lutte contre la corruption et li nga xam ne tey moom mooy yàq système bi mooy problème système de corruption bi la donc loolu noonu bu amee te jàpp naan tey cette mélange là loolu bu am F24 ni ñu constitué man de un man je suis pas d'accord parce que jàpp naa lii ay naxaate kese la benn ñaar aussi gis naa ne aussi li nga xam ne tey moom mooy xew nii ñu nekk li nekk suñu kanam gis naa ne aussi changement bëgg dëgg dëgg dëgg bëgg lii fi nekk nii doo mën a lii mu mën mën na indi changement parce que jàpp naa daal ay naxaate la muy Macky Sall di Idriss Seck di opposition ay naxaate lañ nekkee mais ba léegi hmm. question rek mooy naka gisee euh, juste une minute si bi am si diggante Idriss Seck ak Ousmane Sonko noo ko gisee. waaw gisee boobu noonu dafa fulu gisee boobu noonu yaakaar naa tey. Euh, euh, man euh, am na lu bëri loo xam te ni comme man ni ma ko gisee askan yëpp gisee ko noonu mooy que ne dafa leerul ci askanu sénégalais te Ousmane Sonko musul dox si lu lëndëm Ousmane Sonko gis nañ ko ba mu duggee bureau doyen des gis nañ ko ba mu fu mu dem ba mu demee pale communication bu mu am ba mu génnee si si si ba mu tooyoon la Macky Sall ba pare communication ba mu defoon dem ba yàlla may ko dëgg ci la mu wax naan naan fond Covid bi nañ ko gérer comme comme mu waree na na dem ci ñi ko yoroon donc yooyu noonu yëpp Ousmane Sonko tey bu dee bu recevoir Idriss Seck Idriss Seck génn wax daal ne moom dafa jiite Macky Sall timis ak gée fajar gi mu dem jiite mu dem mu dem ko Ousmane Sonko yaakaar naa ne loolu bu amee Idriss Seck bu demee mën a toog ak Macky Sall timis gée fajar mun ko fekk Ousmane Sonko ñu génn kenn mënul taxaw Ousmane Sonko mënul am courage génn wax Sénégalais lan la waxante Idriss Seck wala waaye génn naan ay chef de l'opposition nii naan naan di nekk ci ay affaire politique yooyu dama ne loolu dafa war a dakk ces compromissions yooyu ay protocole yooyu lañ war a jël arrêté ko sur le dos des Sénégalais donc si bu fekkee fekkee ne ñoom dañoo bëgg négocier seen ay négociation nañ leen seen dialogue bi nañ négocier garaawul amul problème mais daal li nga xam ne tey mooy dig yi ñu nekkee ak compromission yi nekkee mooy mooy acte politique loolu lañ war a arrêté loolu ça ne peut plus continuer waaw. d'accord Ardo Gningue maa ngi lay remercier bu baax a baax ci sa disponibilité. Mm-hmm. jërëjëf jërëjëf voilà may fàttali ne activiste républicain nga conseiller départemental ca Tivaouane conseil municipal ca Notto Gouye Diama merci Gouye Diama merci Gouye Diama